jour bés boobu plutôt lu mu def mooy dafa jël militaires yi takk seeni loxo ay nit filme leen jël vidéo yi dugal ko ci réseau sociaux yi loolu man gën a ràññee ci wàllum béyum xam ngeen ni euh, comme militaires yi nu ñuy defee seen seen seen euh, camp yi di mooy larme ginnaaw bu mu tàmbalee ay opération ca Nord Sindian le 13 mars 2022 tey larme mu ngi xam xamle ni nangu na juróom-ñetti ci base yu Salif Sadio juróom-ñetti base yu Salif Sadio nangu na leen te militaire yaa ngi fay dëkk jamono ji